jërëjëf mbokk internetu Sénégal set ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen teewlu chaîne wi di ko topp ci lépp loo xamante ni ñeel actualité waaye lépp loo xamante ni ñeel réew mi lépp loo xamante ni ñeel na diine Sénégal 7 di ci ànd ak yéen di leen ci jox li nga xamante ni moom ngeen bëgg xam ngeen ni ñi ngi woon ci Magal Touba ñi ngi ci Magal Touba daanaka nag weesu na waaye ñi ngi ci ba tey fii nga xamante ni mooy Madinatu Salaam ñëwoon fekk si soxna si nga xamante ni mooy soxna Aida moom sëriñ Béthio ci màggalam gi nga xamante ni mooy màggalu Serigne tubaay gi nga xamante ni at mu jot nii la koy defee ci dëkkam bu tedd bi dëkkam bu sell bi nga xamante ni Serigne bi fii la cosaanoo sëriñ bi moo ko sancal boppam waaye mu jox ko ci wàccuwaay bu rëy boo xamante ni loolu moo tax boo ñëwee ci dëkk bi xam ni am na ci wàccuwaay bu rëy rëy ñi nag fii nga xamante ni kërama daanaka ndax dafa nekk kër jigéenam nu fekk fii benn mbokkam boo xamante ni bu ko jege la daanaka ñoo bokk benn bàyyi moom ak soxna si muy jëmm joo xamante ne dinañ ko bàyyi mu présenté wu wax nu moom mooy kan ak lan la bokk ak soxna Aida moom Serigne Mbaye di la siyaare di la bàyyi nga nuyoog mbokk internet ñuy topp ci Sénégal 7. asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk internet 7 maa leen nuyu di ah, di nuyu ñëpp tey sant ah, Serigne Saliou sëñ Béthio sunu Serigne soxna Aida Saliou jëmmam ji mu ñu bàyyil. muy sunu yaakaar tey fi yàgg soxna si dama bëgg nga présenté wu àdduna ñu xam la ndax c'est la première fois nga génn wax te bokk ak soxna Aida ndey ak baay dama bëgg nga présenté wu wax sénégalais yow yaay kan. waaw man maay Ndeye Lissa Diallo juddoo Dagana yaroo fa màggee fa euh, bokk ak soxna Aida ndey ak baay waaye di taalibeem. waaw soxna di sama sëriñ may ndongom ko tarbiya ndax sëñ Béthio sunu sëriñ moo booleeg moom ma ma koy doon taalibeem ba faaw. soxna yaay Lissa mu doon cantaakoon lan moo ko si soxna si la jaare wala moo moom moom njëkk doon soxna si cantaakoon. waaw soxna si de moom moo doon jëkk doon ñëpp cantaakoon. ndax ba mu fi muy xamee fu mu doon fu ko sëñ Saliou booleeg sëñ Béthio daa yàgg loolu boobu mi ngi am fukki ak ñaar kon nag suñ suñu demee ba ñun ñëpp ñu ànd ak sëriñ bi lépp mooma waaw ñu ngi ñaanal mu yàgg bu ma la doon laaj soxna Aida mi nga xamoon démb ak soxna Aida tey mi nga xamante ni di ko gis mu amee taalibe sëriñ bi am mbooloo mu ko dénk ak ndombal tànk yi nga xamante ni sëriñ bi takkal na ko. yow loolu lu lay bett la ci moom wala loo xamoon ni dina ko arrivé wala lan nga may wax ci loolu. waaw soxna de dara bett ñu si moom ndax maanaam kii Serigne Touba da yàgg a waajal. lan mooy Serigne ko yàgg a mooy moom maanaam mbokk gi nu mbokk ak moom si saayir moom daa nuruwul ñun si lenn waaw ndax moom bu mu dee soxna de ba léegi daa nuruwul sax da nit ordinaire waaw loolu daal laa mën a xam si moom. ba tax na ni ni mu mel nii ku ku jàppee soxna démb mm, yaa ngi réer de ndax kii sëñ Saliou sëñ Béthio daa def si moom li nga xamante ni kéemaan la waaw kon nag ku xamal soxna démb bu ko jàppee bu démb xamal ni kii beneen soxna de la bu bokkut rek bu démb waaw lii soxna de sëñ Béthio la. tey nga mën a nettali comme ni nga ko waxee soxna Aida démb. Euh, am na lu ngeen daan njortu ci moom loo xamante ni di daan daan ngeen xam ne du nit ordinaire lan nga ma mën a indil ci souvenir lu lay wan ni lu mu mës a def wala melokaanam lu mu leen mës a wan yéen ci ay mbokkam. waaw Soxna daal mës a doon nit ku am sutura ku am yar ku am teggin ku mës a am doon ku am yërmande yërmande la mës a ànd ñëpp ba muy xale bu tuuti la am yërmande doon nit ku am sutura nga xamante ni dafa dafa yàgg tarbiyewu waaw ba tax na am na nga xamante ne boo koy xool si ki nga xamante ni su ma dee wax sax démbam. soxna si balaa may dem parce que maag moom ñoo bokk lu bàyyi dëgg la waaye nag dañoo bokk maa moom benn kër fenn benn euh, mbaar bu ñu yaroo ñaar la suñ papa teel a joxe ndoo waaw ñun fii lañ jàngee école primaire fi lañ defee lépp suñ depuis xale ba tey Fass la ñu yaroo la ñu màggee waaw ñu bokk kenn ku ñu yar ñu yar ñu si ngor nag. yar ñu si diine yar ñu sutura yar ñu si bañ a soxla alal kenn ci ak dignité waaw ci loolu. suma la doon laaj ci wàccuwaay yu nga xamante ni sëriñ bi defal na ko fii ci dëkk bi mbokk taalibe yi ni ñu boole ñoom ñëpp jëm ci moom ak façon ni koo ko gëmee ci lépp loo xamante ni ndigal la lu muy joxe loolu ndax lu la bett la wala naka la lay def loolu boo ko gisee. non bettu ma ndax moom soxna si wax dëgg yàlla dara jomb ko ndaxte moo ko fa xaar moo ko fa liggéey ndax soxna si dafa dafa tarbiyu Cheikh Béthio donte soxnaam la woon mais dëkk dégguloon dafa toppoon ci ay lépp lu Cheikh bi bëggoon suba ba ngoon. maanaam damay juum waaw du nit ordinaire daal tey sa relation ak moom yéen ñaar lan la lan la la defal loo xamante ni marqué na la ci nga doon mbagam mu defal la teraanga gu toll noonu. lépp. waaw lépp la ma defal sëñ Béthio Sëriñ Saaliw sëñ Béthio kéemaan la soxna yi da lépp lañ defal ay mbokkam bàyyiwul kenn kër gi ma dëkk tey moo ma defal ñetti weer la ma ko tabaxal soxna da man fi ma nekk du togg añ du ma togg reer du xotti yére lépp moom la du man ñépp ñëpp la ko defal ci loolu la nekkoon kon nag tey jii cheikh bi dem na te ba muy dem nee woon na ko maa yow avant muy dem nee na ko waxoon na ko que ni maa yow yaay man waaw te loolu ba gis nga firnde bi tey jii mbooloo baa ngi bi réer di ko topp ton ñaanu waajuram ñaanu sëri barki kiyam la jëkkëram ñaanu jëkkëram la te nag mu mu mu jàmm jëkkëram mu ràmm jëkkëram kon nag dara jomm ko waaw dara jomm ko tey ban relation ngeen am yéen ñaar. waaw relation bu macha allah relation bu extraordinaire man sama xarit la xam ñoo ñoo ma presque. waa groupe bi ngeen bokk mu Sénégal 7 di leen euh, jaajëfal ci seen liggéey ak yaatal gi nga xam moom ngeen yaatal yamal yëpp di nuyu mbokk internet yëpp. père lu fekk la fii nga xamante ni mooy kër daanaka soxna si lay wax ngay mbokkam tey su ma la doon laaj ci soxna Aida lan nga may wax. waaw laaj nga ma nit ku baax koo xam ne li mu am mun na ko waaye yàlla fi mu ko def yàlla du juum ndax def na nit ku yaatu koo xam ni lislaam dañu wax ne dafa war a yaa ku yaatal lañ ko war a teg sa loxo. moo tax soxna Aida bu Cheikh Béthio cant rek la ci ay mbokkam waaye sant la ci ñun ñi nga xam ni ñooy ay wóllëre démbam ndax gis nañ bi liggéey bi tàmbee tàmb tàmb dalee ci loxoom ba tey wolof day wax ni ku yokkul yaa wàññi waaye gis nañ ci yokkute goo xam ni daal wax dëgg yàlla ak cant rek la te cant gi Cheikh Béthio doon yaakaar ni bu tegoo ci ay loxoom dana matale soxna Aida daal defe naa ni yokk na ba yaatu na yaatuwaay boo xam ni ah dañuy yàlla foog foog ko yàlla di woon mu nga ci aljana ak Cheikh Saliou waaye bu gisee lii dana xam ni wax dëgg yàlla liggéeyam tardewul benn yoon. tey sa ak moom su ma la ko doon laaj lan nga may wax. waaw soxna si moom yàlla daal li muy wax naan ndimbalu suñu borom rek la ndax nit bu dee dafa jaar nga bokk moom. mu nekk tout tànk ci sa kanam mosoo gis mu def daray gone loolu yàlla moom ku mu nar a yónni rek daray préparer boppam waaye loolu mel ni yar danañ ko wax naam danañ la yar def ci yow jikko ndax nit ku nekk yàlla da lay jaalale ci ay loxo dana am nag ñoo xam ni moom la la yàlla di jaal ñu lay gunge ci abaxale soxnaay man fi ma nekk du ma togg añ du ma lu ma xotti yére lépp moom la du man rek ñépp la ko defal képp kuy mbokk kuy xeet waaw lépp moom moo ko ràggoo ñu koy ñaanal cuun yéen bu oyof jëmm sëriñ Béthio bi yal fi yàgg te ak amiram yi. tey nga gis yenn saa yi Sénégal eh, ay nit di génn di jël ay kàddu yoo xamante ni ñàkk xam day waral lu koy jëmee ci moom léeg sax du ñàkk nga nekk fenn. duñu xam ni dara daraam nga wax ay kaddu yoo xam ne da ngay xam ni kàddu yi nga dégg nekkul ci soxna yi kaddu kàddu yi la lay def. Ah, du ma def dara na damay xam ne ku xamul rek yaay wax waaye ñooñu wax yépp waaw sëriñ bi dañ dem ba gindi leen waaw ndax eh, soxna Aida moom ñu ngi ni tekk rek ndax dañ koo liggéeyloo te yoon bi ñu ko ñu ko teg du ko wàcc mukk kanam rek la jëm waaw loolu la wax ji wax ji ba te day dem. jërëjëf Thioune. maa ko magee deux ans. mais ñoo yarandoo ñoo màggandoo relation bi sax suñu ñëwee nii dañuy toog kafre ku nekk la ñuy wax ngay sàng si baas bi rek macha allah ba mu gisee ba mu waxee dafa ne la kii sama mag la kii mooy Moody kii sama mag la wax fu ñuy jaar ak nu ñuy yarandoo ak luy waaw kon nag euh, maa ngi koy ñaanal wér ak gudd fan waaw yàlla yokk suturam dàq ko seytaane hmm. relation jàmm ak salaam nag àdduna di la wommat ñu yor ay qualité yoo xam ne bu ñu sañoon bu ñu fi jógee nga yor qualité yooyu waaye soxna Aida ñi ko yar ñëpp ku ci nekk yor na si jikko ju rafet joo xam ne waaye bu mu tàmbalee dugg ci loxol Seex Béthio xam na ndimbal yàlla daal dafa yokk ci moom te lépp Seex Béthio ko def ci moom. kàddu googu ngay dégg sëriñ bi di ko faral di wax nga xamante ni wax na ko fu ne yaay man may yow kàddu googu tey su ma la si doon laaj ndax gis nga ni soxna Aida mooy sëriñ bi. waaw Cheikh Béthio ku ne xam na ni moom am na lu mu yëg loo xam ni xëy na ñun la muy yëg moom ñun yëguñ egguñu foofa ndax olof day wax ku ñime dañ la dee te sama baay daana ma wax ni boo bëggee parfum te amoo parfum demal jigéen ji borom parfum bu yàggee da nga xeeñ ba ni ban kon liggéey bi nga xam ni Cheikh Béthio Cheikh Saliou ko def ci moom yaakaare ko ko jox ko ko mu ànd ak soxna ayda fépp foo xam ne nii sëñ Saliou toog na soxna ay toog ci wetam ñaan nga bu koy wasaare tifli tam yee def naan buy dal day dal soxna Ayda moo tax mu ne ko woon yaay man maay yow ndax am na lu bari lu mu fekke tey nag neex na ku nekk ngi daw di wax waaye am na ay jamono ah moom la ñëpp daan déglu am na ay jamono moo daan xëcc ñëpp njabootu Seex Béthio buggul benn kenn fan naan ginnaaw ku ñëw mu xëcc ndax xam na ne liggéey baayam bi mission la boo xam ne Cheikh Béthio daf ko war a eggale moo tax njaboot gépp la quoi fa woon yiir ñëpp ëmb ñëpp kon tabaarkàlla wax dëgg yàlla daal soxna Aida daal gaa ci ngaalaam. sa sant bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi la tawér di ñaanal amiri mi. bu baax a baax. ñu ngi fii la ñu tam ñoo lay siyaar bu baax. sa kàddu yu mujj. waa di sant rek te di ko ñaanal yàgg mu yàgg fi lool ndax yàggam ci ñun day am njariñ ndax Serigne Saliou dafa am benn kàddu gu mu wax mu ni taalibe yi damay ànd ak yéen di dem su ma demee di dem ba gisatuma leen ma wiññeeku jël si leen waaye ànd ak say nawle ñoo xam ni yéen a bokk bëgg-bëgg ndax ak cant rek lañ fi bàyyi cant googu nag moom yaakaar na ne bëggul dem ca Seex Béthio mukk bàyyi kenn ginnaaw bëgg na buy dem ci seex Béthio yàlla na yéex lool waaye bu demee bu Cheikh Béthio tourné kuréel gépp dana leen gis ci ginnaawam kon ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool yàgg fi lool te wér loolu rek la ñuy ñaan yàlla.